tey nag li ñu fi taxoon a teew mën naa ne dajale fi nit ñi am na sax ay cant mais nag am na loo xam ne day nuru ñaxtu lay doon cant yi ñoo ngi sant président de la république ci taxawaayam ci ndindi ak li ko wër muy monde rural bi di fukki dëkk ak juróom-ñaar yi ci côté bourse sécurité familiale bi ak yeneen ak yeneen yooyu noonu ñoo ngi ko ci sant nit ki bu defee dara te mu amal nit ñi njariñ da ko ci sant d'abord defe naa na ñu bari tey eh, xëy na ñi ngi ci mbooloo mi am nañ ci eh, ñaxtu bi nag mooy daaw ci heure bii lañu demoon ci élection yi dugg ci àll bi seeti dëkk yëpp waxtaan ak ñoom te noonu lañ ko def woon ci élection législative yi muy ñu am jom di ñu am taxawaay seen yitte lenn la muy nañu fexe ba jàppale leen ci Euh, courant jàppale leen ci ay tali tamit muy fexe ba fu mel ni Kayra Ndaw Kayra Mbay ba Ndindi raaraan boobu ku ne xam ne ne yàgg na fa lool te lu ëpp 6000 élèves ña ngay jàngee ci ñaari dëkk yooyu ba mayal landang vraiment conditions yi ñuy doxee ku ne xam ne ne metti na ndax ñun ñii suñuy doom fa lay jànge yéen ñi fi toogit seeni doom fa lay jànge kon loolu farata la war nañ ci taxaw ndax xale yi bu ñu demee ba ñëw sax dañuy sonn oto yi nga xam ne nag sëfoor sa fay daw mën nañ cité Cheikh May Ndaw ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ñi nga xam ne ñu ngi fi tey ci mbooloo mi ñaari fan ñett ñu sansay laam seen route li yàqu ak yenn ak yeneen li koy waral muy ranran bu yàqu boo xam ne pour ñu di ko bu nawet jotee sax du ñu ñëwaat sax di ko defaraat ak yeneen ak yeneen pour sax li ñuy tuddee dabb daaxe def ko ko sax bu ñu ko doon am sant yàlla mi amul ci dëkk boo xam ne boo élection jotee muy législatif yi di référendum bi ba ci élection présidentielle yi jàll mbooleem li wër tuubaay yëpp xanaa beleel laa ci mën a génne ñoom ñoo ci jox président Macky Sall ndam nit nag bu fekkee ne boo wootee balaa 18 heures et mu jox la ndam ci say ci ci li nga bëgg bëgg la ànd ak yow defe naa ne ay jafe-jafeem neex naa saafara ko lii saafara jafe-jafe fa mel ni Kayra Ndaw nga xam ne lu ëpp ñetti at ñeenti at poto courant yi ña ngi ko fa teg ren cérémonie officielle bii sama genre gi nga xam ne ay homme politique lañ waroon ko teewee sax dañ ko daw ndax xam nañ ni xeer yi baree bari dana fa jóge ñëw ci ñun te du rafet ndax dañ fay dem ñu di ñu ko jàmbat ñu wax leen ne leen dinañ ci fexe ay saafara te kiñ ci yaakaar kenn la muy président Macky Sall ndax bu ñu gisee seen jëmm yi président la ñuy xoole kon boog tey bu loolu amee dana metti trop ñuy bàyyi dëkk ba euh, ñu koy ñaxtul seen bopp wala dara tam pare ànd ak ñoom danañ ko naqarlu bañ xam ne ñun lii ñuy wax ñi ngi ci defe naan nag am nañ kilifa yu bari yu ñu ko wax peut-être lii bu ko président jégee dana ci def ay saafara muy ci wàllu courant bi ak ci wàllu euh, tali yi nga xam ne muy rang bañ fa def nga xam ne yàgg na fa lool noonu lañ ko defee Touba Bogo tamit ba Daaro Bogo ba Daaro Minam te dëkk yooyu dëkk la yoo xam ne président Macky Sall rek lañ bëgg kon boog lu mel ni PIDC bi ak yeneen ak yeneen vraiment dëkk yooyu moom gisuñ ci seen bopp te ñun nag ñoo fi nekk di homme politique nekk fi ak ñoom bu élection jotee ñun la ñuy gis bu leen dara naqaree ci réew mi ñun ñi lañ koy wax kon bokk moo tax tey ñu dajale fi presse bi fas yéene koo jot li ay kàddu Sénégal dégg ko président de la République dégg ko raana bi nga xam ne dafa nekk di ak jàkki sëñ mbay Ndiaye mooy Poulaye foofa tamit ku ne xam na ne donc metti na te diggante boobu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne alors moomeelu Macky Sall la mën nañu ko tuddee moomeelu Macky Sall ndax bu élection jotee xaw ma ko ko dul wateel ci dëkk bi mais dëkk yooyu moom ca lañ bokk moom. muy Kayra Ndaw di Kayra di di di di Touba Bogo di Bakura Maye Landang ak ñallaxaar bi nga xam ne barki dem rek lañu amoon ay jafe-jafe foofa tamit courant ba ku ne xam ne ne jafe-jafe la fa. donc nag loolu moo taxoon tey ñu ne nañu nañu nañu woote waxtaan ak askan wi waxtaan ak nit ñi parce que jamono bii. xëy na du jamono boo xam ne da ngay ñëw ni prisident Macky soxla na wala keneen soxla na ñun ñoo soxla di ko ko wax doon ko nekkal ci terrain bi donc ñu bëgg nag soxla sii mu saafaral ñu ko bëgg nañ balaa déwén a màggalu Kaïré Ndaw gi di ñëwaat déwén ci heure bii la ci janvier bi la balaa déwén ci janvier bi bu soobee yàlla buñ fa demee man faa jëlee ndam man a taxaw nekkat ñu ñun lañ waxante woon ak yéen wala lañ ñaanoon président Macky Sall defal nañu ko te mbirit ñun ñoo ngi fii ci dëkk bi di ko sonnal ko amug da ngay indi ay lettre indi jox ñu li ma fi gàddu ci ay lettre fii nii sama néeg bi kenn xamul lu mu parce que waxoon naa ko sànq sama jëmm ji lañ may xoole président Macky Sall ndax gisuñ ko man la ñuy gis maay dem naan leen président nee na wala bëgg na lii wala nii ak nii la bëggee donc nag loolu di am euh, soxla nañ ay taxawaay mu gert suñu ci ñun ñii parce que tamit bari na luy am luy am lu baree baree bari loo xam ne duñ ci jot te gisuñ ko muy bu tabaski jotee bee màkk yi ñuy séddale ñu ko soxlaa ngi fii te duñ ko te duñ ci jot te pourtant de bu naaj naaju tàng jotee wala dara jotee ñu ñooy dugg ci naaj naaju ñun ñooy dem ci askan wi waxtaan ak ñoom ca loola loola war na ko mën a gertu ndax dëkk bu ñu dem dañuy waxtaan ak chef de village bi mu jox ñu ay nitam muy niti boppam muy fu mel ni Kayra Ndaw ay représentant Baye Xaali Ndaw ña nga fa muy chef de village su dëkk ba bàyyi Moodu Xaali Ndaw ma nga fa mi mi ngi fi Cheikh May Ndaw mais Kayra Ndaw la dëkk ca dëkk ba Ibrahima Ndaw mii di suma coordonnateur foofu la dëkk am na ci ay jigéen ñu nekk fii ñoo xam ne ña nga dëkk ba ñallaxaar ñii dëkk ba Bakura ñii dëkk ci yeneen dëkk kon li ñuy def noonu donc dëkk bi la concerné ndax di duñu leen bàyyi ñoom ci boppam ñuy toog di manifester wu di ko defee ci façon boo xam ne mën na mën nañu mën na yàq lu baree bari te ñun mën nañ ci waxtaan ak ñoom wax ak suñuy kilifa ñu dégguñu ci ba li ñuy def saafaraw donc li ñuy def ñun ak waa dëkk ba ak ñëpp ñun ñoo ko ànd di ko def